i la, la. jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi jàkkaarloo ak nun noo ngi fii ci kër Serigne Cheikh mbay Yaram di xalifa sëriñ Yaram mbay Serigne Yaram nag ku ko tudd tudd maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina li sabab ngir waxtaanee Cheikh Mouhamadal Fadal digganteem ak maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina jëmm ji ñu muy Serigne Cheikh Mbaye Yaram di koo xamante ni bii bokkoon na ci ñi nga xam ne léeg ñu amoon jotaay ak Cheikh Mouhamadal Fadal ci xëy na yónneen yoo xam daanañ leen ko yónni ci Serigne Fallou am lu bari loo xam mën nañ koo seere ci digganteem ak maam Cheikh Ibrahima Fall ñu fas yéene rek tey séq ak moom jotaay mu leeralal ñu euh, kan mooy sëriñ Fallou ak nan la sëriñ Fallou doon dundee maam Cheikh Ibrahima Fall ba du muy diina asalaamaaleykum sëñ Mamour moo ngi dellooti di la gërëm di la sant ci liggéey bii nga taxaw ci di ko def ci Lamp Fall Lamp FM ngir liggéeyal ko maam Cheikh Ibra liggéeyal ko yoonu murit liggéeyal ko képp ku baax ndax maam Cheikh moom day nit koo xam ni kuy lu sax di nga fekk ci téere tubaab yi lu ñu bind loo xam ni ñoo rafetlu aw doxinam kenn musta am lu mu mën a corriger ci moom ci aw doxinam ak ki mu doon nag ci tali bi nga xam ni bëggul loolu sëriñ bi wante boo ko jàngee ca fa ma fa ma ko gis ay tubaab bind ko dañoo wax ne Cheikh Ibra ci ñi nga xam ne ñoo gën a ci seen diggante ci diggante seen diggante ak sëriñ bi ca la bokk wante nag bu mu tax nga wóolu waxtu boo xamante ni sëriñ Tuubaa joxe na ndigal nee na Cheikh pare na ci wan ko gannaaw buutul déglu kooka la muy wax ak moom nga sëriñ bi wax lay déglu li nga ma laaj nag ci digganteem diggante sëñ Fàllu ak maam Cheikh am na ci loolu xam ne mën naa la ko nettali loo xam ne maa ko fekk moom dama mos a xëyee fii dem nuy ji sëñ ba ma demee néegu ñaxam ba ñu tuddee kersa fa laa ko fekk sëñ Modou Bousso Dieng doomam mi ngi toog sëriñ bi nii ma toogee ci fauteuil bi ne la toogee ci lal bi sëñ Modou toog ci suuf féete ko nii ndi joor man ma féete nee sëñ Ousmane Bousso ma nga fa Baye Mbaye Ndaw ma nga fa woon am na keneen ku mu ñetteel di waaye fàtte naa ku ku ku ku ku teg ku tege ci ñaati nañu waaye fàtte na fàtte naa ko ku mooti ba ma ñëwee ba nuyoo damaa fekk sëriñ bi yor aw këyit këyit la muy jàng tur yi ci nekk sëñ Modou bu sa Dieng di déglu léeg mu tudd aw tur sëñ Modou ko kooka dem man xaw ma sëñ Fall ne ko kii xam bi bi mu daataan juddu kii kii kii mu tudd it ne sëñ ko kooka de moom xam naa ko mu ne kii kii bi mu demee yàggul mu di ko def ba kayit wa yegg sëñ Fall ne sëñ Modou ca yooyee jamono nag. nit ñi ñu ne ci kédu yi ñoom la ma yàlla booleel ci ña jébbalu ca ñoom sëñ Fallou wax ni sëñ ni sëñ Modou ba ma fi jógee nag bi ma ko bindee dama daal di ànd ak ñooñee ak la ñu liggéeyoon indi dem fekk sëriñ bi fa mu ne ñëw jox ko ko ne ko ñéere yi ñoom la ma yàlla booleel ci sa barke lii ñoo ko ñoo ko liggéey ak sama jëmm jox nañ la ko nag ngir yàlla akub taalibi nii toog naa sëñ Fallou wax ko digganteem ak ku baax kilifaam bu loolee noppee nag dañu nodd ci jumaay ji ñu déglu nodd gi ba nodd gi yegg mu ne ma gees ne ma bàyyi faal ba na nga jullee ma ne ko déedéet mu ne ma doo julli ma ne ko déedéet mu ree dar gi miñ gi nii ni ma di woore ma ne ko du ma woor mu ne ma di nga tuxa ko du ma tux mu ne ma nii ba nga naana ma ne ko du naan lu naan sàngara ni sëñ Moodu tooge woon nee ma tooge nee nag sëñ bi diggante boobu ne cel sëñ Modou ñoddi na ma dii ma ni ma danga doxaana ma ni ko négal ko sëñ bi yegg ci loolu <laughs> nii la nii ma la wax nii damay lii ma la wax nii moo kuy tarifaatee laa yemal na mu deme woon rek laa la koy wax sëñ bi ne ma Baay Faal bi jógoon dem maasaleer ma fee may jullee te génn ca bitti dem julli ba noppi nga door a ñëw ma ni ñokket dem maasale ko ba mu ne neer ma génn weeru ci perum néeg bi ba julli jot ñu julli ba sëlmal ba ma dégg ñu waxtaan ma xam ni ñee lañ doon def mat na ma dellu si toogaat fa ma toogal ma toogee suñ fàllu ne ñi mu bàyyi fàll neexut a xam de daal di ne kat li mu def Cheikh Ibra Fall am boo xewee ni sëriñ bi day julli ca njaarim nit ñi nekk ci ginnaawam ndegete Cheikh Ibra Fall nga fa ba sëriñ bi jàngee Faatiha jàng aw saar ba rokkoor tey ci wóomum Cheikh Ibra dawee ca gannaaw nit ñi ñëw ni ñola kot sëñ bi dal dal def nii téye ko mais ba mu ni si kët ni sami Allahu liman hamida Cheikh Ibrahima ni cëpp mais daal di waaw ko akasa ab sëriñ dalay attan ci biir attan la ci biti dal di daw suñ fàlloo wax loolu di wax ne am na benn bis si sëriñ bi yónnee wooma ma dem muy ji ko moo demee ba fekk ko ci néeg ba moo ko fekk mook Cheikh Ibra Fall dong fa nekk mais nag mu ñëw mais sëriñ bi ne ñokkit ne ma fàlli lu ma ne ko mbàkk mu ne ma añal foofu yaa ngi la fàll te boo noppee fekk ma ci néeg be nee ba sëñ bi demee sëñ fàllu nee na ma jël raxasu ko sëñ Cheikh Ibra ne ko ay ca raxasu lu nu añ Cheikh ne ko du ma bokk ak yow de ngay añ ba noppi jox ma ma door a añ hmm. sëñ fàllu ne ko ah xanaa dégg nga sëñ bi wax mais Cheikh Ibrahima dégg naa ko di dafa ne nan añ waaye néewul nan bokk man duma bokk ak yow nee na ma ne sëñ Fallou ma sëñ Fallou ne ma ne yow sax te tey jii la ma yàlla jox ma wéet yow soxla war naa la lu jiitu tey mu ne ko aha ah, mu ne ko mu ah, loo ma soxlaa mu ne ko dafa am lu ma la bëgg a laaj mu ne ko loolu lu mu ne ko dama laa bëgg a laaj yow mi xam sëriñ bi démb xam ko tey ndax melokaan wa nga xamoon ci moom démb ak li nga xam ci moom benn la wala ne day Cheikh Ibra ne ma loolu laaj ko nit manub dof laa suñ fàll ne ko waaw waaye dit man nga defal ma tontal nit te bañ maa defal tontal dof day Cheikh Ibra ne ko bu ma la ko waxee boo liggéey boo ko nettalee dañuy wax ne la kooku dof la moo tax sëñ Fall de quoi dégg naa li nga wax waaye man laa wax li ma defal ma tontal nit te bañ maa defal tontal dof nee na Cheikh Ibrahima ne ko jàng téere bi ñuy wax Masaalikal Jinaan sëñ Fall ne ko waaw mu ne ko téere boobee jikko yi ca nekk ak jama xamoon ca sëñ Bamba démb wuute wuñu am naa nag muuraay gii muy def tey xaw ko moom ci moom démb kon nga xam ni ku gëm ku gëmut sëñ bi ko ko ku démb la woon daa ñëw fii di keneen rek sëñ Fallou nee na ba mu añee ba noppi nga ñokket dem fekk sëriñ bi ci néeg ba mu ko doon fekk ma ci ba noppee mais na ko ma yegg si toogal mu ne ma fay lu añ ngeen ñu Fallou ne quoi ah, man de mbàkke añ naa ba noppi ñu ne ko yura xaal na mu ne ko moom de mu ngay door di añ nee ko nan añ mu ne du du man ma ne ko xanaa déggoo li sëñ ba mu ne dégg naa ko sëñ bi dafa ne nan añ waaye waxul ne nan bokk man lu mu bokk ak yow ngay añ ba noppi jox ma doole añ mais sëñ bi dal di def nii loxol mbubbam daal jëm jëm loolu ñu doon xaalum démb mooy moom léegi. ndax ñu ba léegi. loolu lii de maa ko dégg ci ci làmmiñu sëñ Fallou te billaahi wallaahi ak màggug alxuraan ak Cheikh Ibrahima màggug Serigne Touba yokkuma ci dara wàññiwuma ci dara looloo tax nag man samay wax du bari parce que du ma la wax mukk mukk mukk mukk loo xam ne waxuma la firnde yi ñii tey yàlla bëggoon naa tey ñuy dund koo ci dem laaj ko ku mun la li mu wax dëgg la li noonu nii la ko sëñ bi wax waaye boobu sëñ bu sa Dieng a toog ma toog sëñ Ousmane Boussa Baye Mbaye Baye Baye Ndaw ka ca des fàtte naa turam damaa xamul ku mu doon neti daal waaye fàtte naa turam lii daal toog naa sëñ Fallou wax ko ci Cheikh Ibra Fall leen nuyu yéen waa Lamp Fall leen xamal ne bisu mel nii nga xam ne amul benn xew-xew bu xew lu dul nu toog ci fii ci sunu buntu kër rek ak ak nuy nuy nuy béggee Cheikh Ahmadou Bamba rek ngeen ñëw bëgg noo jël bëgg enregistré sunuy waxtaan yéen a ko jukkaam mboolem kàddu goo xam ne mos naa jóge ci sama làmmiñ di génn di dem bisu xew-xew lay doon lu xew ci tuubaa ci màggal yi rek màggal gu màgg yi wala màggalu Kazu Rajab rek wala yu mel noonu ma sànni ci ay kàddu yu tuuti rek waaye ñëw ak sa rajo ak sa appareil eh, dañoo bëgg nga sànni ay kàddu rek ma dal di sànni kooku moom yéen a ko jëkk am mosut am te daanaka jaaji mi doon waxtaan léegi xam na ci dara ñi ma delloo ñëpp xam nañ ci dara daanaka ci ñu ñëw di ko soxla daanaka ci lañ dëkk fan yu néew yu mu am. moom am ñu ñu ñu ñu mel ni yéen yor li ngeen yor ñëw fi soxla loolu te duma ko def est-ce que baat ba tax ma ma ma ma ma ko def itam mooy bi may wax rek kooku moom sama wax la boo xam ne bii duma ci jóg mukk fii sama bakkan a ngi fi muy dama nekk ci dëkkub kilifteef nga xam ne dañ ma fee yilif te yoon wi du yoonu kilifteef damay wax saa bu nekk ne Touba ki fi war a wax mooy sëñ Sidi Moxtaar rek wala kum wax loo ku mel ni sëñ Bass Abdou Khadr mi nga xam ne moo yor baatam ak jëwriñam yi ci des nag yi nga xam ne sëñ bi daf leen a jox ay kër yu mag ñu jiite ko te ñooñu it seen wax mooy bis bi ñuy am ba kër ga am bu ñëwee ñi leen yaakaar ngir jëmmi sëñ Tuubaa ñëpp daje fa euh, màggal bis ba buñ njëkkee ba yëf yi di jeex gannaaw yow lañ yaakaar te yaa leen fa dajale nga sànni leen ay kàddu yoo xam ne kàddu yi kër ga lay doon lépp jëm ci sëñ Tuubaa nag waaye kër ga lay doon nga digal leen ko tere tere leen ci sa biir kër ñu dem yóbbaale loolu loolu loolu moom danay am waaye bu dee baatub dëkk bi nag nga xam ne du baatub kër baatub dëkk bépp kooku moom sëñ Sidi Muxtaar rek moo ko moo ko moo ko moom wala ku mu wax loo loolu moo waral sama wax du bari man nag maa ci gën maa ci maa ci war a gën a gën a néew ay wax man ndax sëñ Sidi Muxtaar bu yilifee dëkk bépp kër gi ma bokk da ko yilifale kër gi ma bokk nag bu ko yilifale ba kam yi kam yilif yilifaale ma kooku kay man lu dul dégloog foto su waruma koy def euh, waaye nag boo gisee lii tey ma nangu ko muy maam Cheikh Ibrahima rek waaw Cheikh ku ma ci woo ma bañ ku ma ci woo te wuyuwuma la kon nga xam ne defuma li ma war a def euh, li ngeen jëkk am nag li tax ngeen jëkk ko am mooy li ngeen ma woo yéene ma ci jëkk woo moo tax waaye nun nag yàlla def na dimbalee ba ki nga xam ne jigéen woo muy maam Cheikh Saamun Bamba ak Laaji Fallu dañuy cee far ubbil bunt dañu cee ubbil buntu far bunt bi mooy sëñ Abo Mbakke sëñ Abo mi nga xam ne ah, maam Cheikh ay maamam rek far muy bopp sunu kër koo moom bunt la boo xam ne nun leeral na sunu mbir leeral na sunu mbir maam Cheikh nag man mënuma cee sori ci waxtaan ndax maam Cheikh dafa rëy dafa rëy rëy goo xam ne neexut ku mel ni man di di di ci waxtaan waaye xam naa ne daal képp koo dégg ñuy wax ne murid saadix la ñu tudde ko murid saadix xam nga am na ci yoon yoon yoon bi ñoo xam ne yi da nga oh yow de saadix la koo dégg ñuy wax ne murid saadix la boo demee fekk wax googu ñu wax ne murid la di dëgg da nga fekk muy dox doxin maam Cheikh Ibra Fall kooku moomul képp koo xam ne dañ ne murid la nga dem te fekkoo muy dox doxinu maam Cheikh Ibrahima Fall xamal ne dañ ko ko waxal waaye certificat du amut waaw certificat amut saadix moom mooy saadix moom bu ñu la ko waxalee te wér kañ ko kañ ko wax ci moom boo demee boo àggee la ngay jëkk a gis ci moom mooy doxini maam Cheikh rek melo ba wax jaag doxin waag lépp maam Cheikh lay doon boo ko fekku rek tur fa ne waaye waaye waaye waaye eh, eh, lañ la ñu xamul kon daal noo ngi nu foofu rek laa yem ci maam Cheikh. ak ñoom Baye Fall ndax dañ ma dugg si gur man eh, ñax goo seeg la neex ba mun ma cee wax dara ndax lu ma ci wax damay damay damay damay dugg ci gaam boo xam ne day ndax dañu ñaar mu di seere ab waaye am na mu di seere te bëgg nañ ko bëgg koo xam ne ngir ni muy Sëñ Tuubaa mais maanaam toujours nag murid yi gëm nañ Sëriñ Tuubaa bëgg nañ ko waaye Baay Faal yi wóolu sëriñ bi nag. waaw waaw wóolu moom. ko ndax julli ji woon màggee weeru ko ni màggee asaka ni màggee aj bàkk ni màggee da nga ko jël ba mu fee ko jàpp kenn waaye loolu day mos na ko wax góor bu baaxoon ñoom suñu suñu Aliou Seck wanaar sëñ Aliou Seck daa si bi ne ko wàllu yu sekk mu ne ko ah loolu de xamuñ sàmm mu ne ko su jël ñaari cër yi moo ñu xaaral mu suumee suñu borom mu baax ma ne ku ku wax ki cër fa la jox sa bopp a daal di yónni ndaw ci xew ne ko daa bëgg nekk muru saarix mu ko mun ko nekk mu ne ko lu tax mënu ko nekk mu ne ko demal wax ko ne tax mënu nekk mu ne ko day doomi soxna doomi soxna daa jàng alxuraan jàng xadis yàlla ne ko def nangam ba lakk la ko def nangam ba teewal ko def nangam du wóoru bàyyi mu ko ne ko ne ko damaa bëgg nekk Moussa mu ko def mu nekk ko mu ne ko nekk doomi soxna la doomi soxna day mel ne garab goo xam day wér lëm bu koy bu koy loolu bu yett day kocc kocc ndànk-ndànk ñu ko dee ko naa bëgg a doon Moussa def moo ko li ma ko li ma li ma lay wax saa baa soo waxee doo tiit yow nga ah, man sax yónni ko suñu maa yónni rek mu wala ne ko na bàyyi yàlla bu bind nga ah bàyyi yàlla yàlla seedoo fa jàpp yàlla xool xool nga ah mu wane ko na bàyyi yoon fii tax bi bind ko ah yéen yaa ngi wax na bàyyi boppam bàyyi bokkam. waaw te doon sëñ tubaab yi. gis nga loolu moom donc man la boo ko mën yàlla bi ko bindoon man la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam tax mu bindoon ko mu gënu koy bokkam. <laughs> loolu koy gis na ko sant bu ñëwee sëñ tubaab wa nekk rek bi ñëwee sëñ bi rek bi loo loo sëñ bi sëñ la peccew cee gën a say bokk. ci sa ci boppam sa duwooyee ci boppam ban sant sant yi nga bokkaloon wenn askan te ñooy ñooy Sëñ am ngërëmu Sëñ Tuubaa la jiitu sant yooyee li boo xamee dafa dafa dañu mos a euh, sàcc ñu mos jàpp jàpp am naar jàppal jàpp ñëw Cees fekk ñuy waat ñu xool ko paak mu xonk cur mooy naar bi mu sant naar bi moom mun na Faal laa sant mu Faal nga sant yooyu du sàccewu mu ko lu sa sàcc lu sa sàcc ko mu ne ko sa moo sama sëriñ ko sant mu ne ko mu ne mu ñëw paaka ba bar ko mu sedd bii bu mhm. dikkee ñëw seeru seeru ko ah doom ba léegi bu waatalal si ci kaw loo xam ne aw sant la jël bàkkeeloo ko ci loolu aw sant rek eh, kon may wax rek sëñ bi yokk soo ko yéen te ñaan ci barke sëñ Tuubaa barke Cheikh Ibra xam ne ku ajaay ñu sëñ moo tax loolu ku ne war nga nangu ndax gor si as gor yow juru la juroo ko jëndoo ko mm. ëpp ko xam-xam ëpp ko xel daq ko ko jaamu yàlla ëpp laa tooy suuf boo tooy ci kaw boo tooy suuf boo laajee bu jox la di wóy soo san bàyyi san ndeyam san bàyyam loolu seer laa def moom ñëpp suñu tuwi dañu di toog taw di di di defante moom yoon bi danaan def moom mu toogal suñu tuwi ci kaw mu bëx nga daan ko jabar loxo mu bëx kenn ko defee nii ku bokk moom mën a kenn bokk kii sëñ bi woo sëñ daaru asna daaru asna bokk bi nga bàyyi yiw def Cheikh Cheikh Naar Asne waaw góor boo génnee su génnee ko waaw góor defal ku nekkati def ko ni ko def ñu dañ ko dañ ko dañ ko bëgg waaye mënuñ ko. suñu taay bi daal su waxoo waxoo waxoo ko la wala waxoon wax na moom. waaw wax na moom rek. mooy loolu. kon ñëpp ko ma dikkal euh, ñun nag dañ ci amaat benn cër ngir suñu fàll moom dafa bàyyi fàll la mm-hmm. dafa ñëw carrière bi fekk ci suñu aminta rahmatullahi alayhi moo yoroon carnet bi nee na ko mu xool carnet mu jox ko mu xool mu ko bindal Fall Baye Fall si moom aminta na Thiel ba mu ñetti yoon mu koy fàtte naa yéen dañuy may dañuy jaay am jaayam daan naan poche jox mu jëm kon xam ne yëfi Sëriñ Tuubaa yi mayu da jaay ku ñaan ñàkk nag bu ñu am. mooy Sëriñ Fallu rek doon na ci firnde. ndax sëñ Fallu ni mu toll ak fi ko yàlla teg ak li mu doon ci sëriñ bi mu jaay lépp jënde ko li Cheikh la njëkkee mu yàgg taalibe <laughs> tabax jumaa ju toll ni yii mu tabax tudde ko it ku dul julli kon Cheikh Ibrahima moom martabaam kawe na ñëpp waaw loolu daal laa ci xam ñu daal ñu ñu ngi koy luñ man rek waaw loolu daal xam man saa boo xëyee am naa benn message boo xam ne Cheikh la su ma ko saa xëyee su ma jëlee suuf ba àggsi naa xëy tàllal ko fa ñaar loxo mu ngi ko asalaamaaleykum maa ngi Cheikh Ibrahima Fall maa ngi lay siyaar ci bëgg gi bëgg sëñ Tuubaa yàlla ma ko wàll. alhamdulilah laay asim loolu saa bu soo soo tey yiy mucc. waaw saa bu jëlee suuf ba maa maa def daan naa di kër tiim ko ta ta tàllal sama ñaar loxo ci mu ko asalaamaaleykum maa ngi Cheikh Ibrahima Fall maa ngi lay siyaare bëgg gi bëgg sëñ Tuubaa yàlla ma ko wàll. te fu mu ko wàll rek nga am ñu bëgg moom. ndax sëñ Tuubaa moom bëgg da nga ci am جمعة عبد المريد صادق ما هو بخدمة أو بحب أو هدية كل من جمع يأتي بقول شو نقول كل حال نجينا سنتوا بخدمة بقولها ما حب نجيب قبل سنتوا كل حال هو هو نجي مساجد لسه نجي فرزة كل شيء من قبل كم بقول بس فوق هدية بس يبدي سنين ولا في غير هدية سيا سيا سيا ما هو نجوا هدية باي كده وجو كده بنقول نفسي الله بيجي بنقول الله بنقول نجوا ñu bind ay ay wayndare wala ay watal ay ay tirimut di topp ay robo soxna su laag soxna laago am fas naag euh, moo war wa jabar hmm. Hmm? ñu lépp si bi jël ñu fi te loolu liggéey bi seewe liggéey si biir génn ndax amuñu kenn suñu doom njëriñ kon sëñ bi moo tax wii ba ba ñëpp ci njëriñ hmm. kon mu jawal seer fa alal bi ñu ñëw ci bis bi ñu ñaan subhanahu ci bàkki Cheikh Ibrahima moom ndax tey moom dara suñu Cheikh Ibrahima ndax fi ñu tey ku bëgg a tibb dara Cheikh Ibrahima ngay tànn boo law Cheikh ci feneen rek buntu bi jox la kon man ñëw naa fi tey Serigne Fallou di tawasul ci bàkki Cheikh Ibrahima Fall moom bëgg ngeen wàllu mi taalibe bi nangu ak wóor gi wóoru Serigne Touba ngeen dimbali ci bañ mën ko wóor ñun noonu ndax mooy am njëriñ ci am mbir boo gëm-gëm te wóoru ko am njëriñ ci aspirine di wër sa bopp di métti nga naan aspirine aspirine wër dafa yëngu la gëm ne aspirine mën naa ko jël waaye mën doxee kon nit ki lu mu gëm doy du ci mën a jëriñ te bëgg gi seex bi bëgg Sëñ Tuubaa ñu nga xam ne ndax am na mag ma nekk ne ma nee na message bi Sëñ Tuubaa téeméer bi suñu wax jàng suuf laal laaj sat la jàppaat ñu naa ñu am ah noo jàngut alxuraan ñu wax ñu ne laa yamal suuf illa mutahharun kenn waat jàppoo mu ne ah alxuraan lu mu doon ñu alxuraan wax yàlla alxuraan mu ne ah suñu baat bi jëf yàlla kon wax yàlla ginaar si nga laa jàpp kon boo laa askan boo laa jëf yàlla. kooku fu nekkoon kooku fu nekkoon Sëñ Tuubaa. yàlla na ko yàlla fa. loolu laa bëggoon wax rek leeroo ko. te am na ñoo xam ne lii yàlla dafa seetlu neexu leen neexu leen de loolu ñu bëri xam nañu waaye ku neexu nag. génnal dem euh, assurance yi génn ko rek ndax yàlla pom pom na ko jaww ji yëpp ko suñu waaw euh, ku ne kat bëgg naa am am Baay Faal kon bëgg nga am de kenn koo koo koo gën a gërëm sa kër kon lu baax kenn lu bëgg sa kër te ku gën a gërëm sa kër gën faa mokk gën faa nangam nangam hmm. mu ne mooy Baay Faal ah loolu nag ko ko ko bañ ku mënta hmm. am rek ko bañ si bi ku hmm. ah, mënta waaw waaw ku mu tam waaw fekk naa ci am na lu ma ci mën a wax am na lu ma ci dul wax hmm. waaw am na loolu kenn mënut wax ba ma wax du ma ko wax bi ma mën a wax nag moo di booba Sëñ Ablaye Fall dara fi ne ñëw na carrière fekk nanu fado ji ñu mujj génnee xeer yi mu joxe ndigalal ñu roñ ko indi kàmb gu xóot la ba ñuy génne béton ba ndoxa nga ci fa mu fa fa ba jógee ndoxa nga fa taa ba mu ñëwee bot yi mu soloon ñëw na ba ci buntu kàmb gi ba wër ko ne xanaa fii ngeen jëlee xeer yi ñu ne ko am ah, mbàkk bii moo mujj danga koy xamal ni ko nag day def bu jeex bu ñuy gas beneen la ñuy gase ca bee mooy la ñuy sakkee bu njëkk bi moo tax toujours bu ñu fi jógee benn pax bee fee nekk waaw yi ci des yëpp bi topp ci moom mooy sol bu njëkk bi beneen di ko sul ba bi ci mujj kat moom lañ dul sul sëñ Fallou nag ba mu tiimee kàmb googee wax na ci làmmiñam ni kàmb gii de ku ci dugg soo yaram araamal na safara laajal bàyyi faal yi ko fekke woon yëpp ñi ngi dund ni nit ña fa ña duggoon ca biir sëñ bata Mbàkke ngi nii maa ak moom noo daan nàpp pel noo daan dend waaw ay xarit la noonu yoo xam ni booba nanguwunu kenn mën ci pel yi nit ñi dañu fàtte ni ñoo doon gas fii dañuy dugg ak ci biir di xalangu di xalangu ba fii mu ne xam naa ni bu ma fa demee mënatuma ni pax mi fii la tool waaye xam naa fa mu tollu bu ma fa temee rek ba toll fa dinaa xam ni fii la waaw dig naa ko sax sëñ Habib mii doomam te nekk fa bëgg naa fa dem ba won ko fa kàmb gi toll ànd naa ak samay doom bis di rooti ndokk man demee oto ba ba toll fa nga xam ne fa la sama dal nekkoon damaa taxawal oto ba wàcce xale yi ni leen ñëw leen fukkoot rek fexe leen ba taxaw fa ma xam naa fii sëñ bi waxoon na gën fi tax waaw mooy loolu loolu moom xam nga li ma lay xamal nag mooy leen jumaay moom barkeelu du ko def déedéet barkeelu tabaxul jumaay ji jene jumaay joo fi gis ñuy ñuy barkeelu di ñëw dimanche di barkeelu di dem ba léegi yeggul loolu daal naa la ko xamal déedéet sëñ Fall bi mu ñëwee xam ni liggéey jumaay ji da koo tax jóg daaray jumaay la wut daara jumaay la wut waaw waaw kilifa gu ne mu yabal ca mu yabal nga nga nga wut ci sa njaboot andi dégg nga ñun suñu kër ab ku ñuy wax Abdou Fall ab sët la woon ci sama baay Abdou Fall moom la sama baay joxoon sëñ Mortala sëñ andi ko ci daara jumaay jii daara jumaay jii góor ñoo xam ne dañuy dañuy liggéey yendoo liggéey yalwaani lekk dégg góor ñoo xam ne ñi noor bu nañu noor fee ca daaru doggee carrière be gaxto yu bari yéen ko andi looloo mën a tabax juma dégg waaye barkeelu tabaxul juma te juma yu fi yegg yépp te jaar ci loxoy sëñ bii ju ci ju ci ne naar yi am nañ ci wàll waaw waaw naar yi am nañ ci wàll tuumaay jii man mi may xàmme ko sëñ Mor Talla defe ne dégg nga sëñ Fall la doon wax ñëw na kaare gis nga man mi di wax ak yow sëñ Badara Fall mii dem bu yàggul doomu bàyyi na Yaasin ah sëñ Diop mais Daaru Marnaan doomu Baye Mbay Jóob la dégg nga ñaari ñaari ñaari xale yoo xam ni nootoo lañ jóge woon ñu jox ko sama baay ku ñu wax Seex Njaay ak Jibri Njaay ak taalibe taalibe sëñ Ablaay Faal Ibra Yaasin ku ñu doon wax Géwél Jóob mu ngi dëkk fële Géwél Jóob mu ngi dëkk fii ci kii dëkk bi Bambey Géwél Joob foofu la dëkk nun ñii juróom benn ñii dañoo gas booba dañuy def bu ñu demee carrière bu ñuy gas di gas ba doj yi génn alxames kuy wàcc nun booba dañuy wàcc bu boo alxames bu ñuy wàcc ku ne da ngay seet doj yi nga mën a yanu nga indi ko ci ci fanaanal ko bu njëlee nu jël suñuy doj yenu ko ñëw wa yenn ko fii ci jumaay ji ma jaal dellu bisu ajuma boobu ni su soxbaan la dañu ñëw ba tolloog fii ci jumaay ji fii ci fii ci gaaru gaar bu mag bii ban fay toll ci fajar la sëñ lan jóon sëñ muy dem carrière lii ma lay wax ni sëñ jóom mi ko fekkoon moom fii ci daaru man naa moom di ben dal daldi den ku suñuy won beti ko wat bani ak ci bani ñuy dugg carrière la fekk serigne bi ah, waxtaan ak ñom ba nopi delu serigne bi da def suñuy gas di gas di gas ba doy doy day ñëw jaajëfal leen ni leen roñ leen ko waaw roñ leen ko ñu bayyi gas ba nak di roy waaw loola boo boo moom ci lun fekke la suñ fal daan wax maa ngi ba soroor ndax bi ñuy teg xeer xeer yi moom boobu ma fa te ña ko doon teg la bokk teg xeer yi mujjë tegu ci kaw soroor bi bu mag bi moo ko ci teg waaw fondement ba soroor jumaay ji daal uma ji waaye sëñ Fallou moom ku ko xam xam ko ak Cheikh Ibra sama nijaayu Cheikh Modou de nett li na ma ci loo xam ne lii eh, booba la sëriñ bi wàcc liggéey te moom demagul moom Cheikh Ibra demagul mm-hmm. nee na ma benn bis nii ci njaareem sëñ Fallu ñëw na fa def na fa moom ñetti fan sëñ Modou Moussa nag moo jëkk a ñëw def fa benn bëccëg waaye toogu fa sax ba añ waaye ñëw na fa rek fekk fa sëñ euh, maam Cheikh ba mu ñëwee maam Cheikh ni ko ah waaw sëñ Bamba donc dem na de waaye kat matulul waaye nag dalaa mënatul a gis wax na la dara sëñ Modou musa ni ko waaw amna lu mu wax de mu ne ko lu mu wax sëñ Modou musa ni ko neena na bi may jëm bëgg fa Touba na ko taxawal bam taxaw yi mu talifam na fexé ba dajale leen mu ne ko nga deug neena na lu wëttoon na jox ci mbaa dam bu man sëñ Modou musa ni ko bo mu jappalé rek fa loolu de sama nijaay mo koy nekk neena bu mu démé nak sëñ Fallou ñëw def fa ñetti fan sëñ Basiiru ca tàkkusaan la ñëw sëñ Basiiru bi ñëwee ci tàkkusaan mag ñi dañu ne Cheikh ba nangoo nuyoo ak doomi Sëriñ Tuuba ndaredu dafa jëkk wut ñam yóbbu ko fi barab muy xéwlu mu dem toppatoo ji àddiye ja ngeen ja muy teg ci loxoom door nuyoo moom diggante boobu nag bi sëñ Basiiru ñëwee ba ñu yëgal ko ma nga ca loola bi mu ñëwee sëñ fekk sëñ Basiiru yi jóg na yàkkamti bay dem ndax bëgg jilli ji timis bi Cheikh bi ñëwee laajte ni ah waaw ana Moodu Basiiru miñ ma doon wax mu ne ko xaal moom day jóg na de mu daa mel daa daa bëgg a dellu mu ne nañ ko dabi ñu daw dab sëñ Basiiru mu dëkk ba mu dellu mu ne ko foo jëmoon ba nga bëgg a julli ji donc jullit fi mais daal di ne ma cheikh ma doy wax de mu ne ma cheikh ma ni ko faal mu ne ubbil gaal googu te jox ma der yi ci nekk ma gis nee na mu ubbi gaal ga der indi teg mu ne ma tàllal ma tàllal mu ne mu xool ne ma ah, du bii de indil ba ca des mu dem indi beneen tàllal mu xool ni ko ba tey du bii di indi ba benn ba fekk ñetti dara fan mu dem indi boobu mu tàll mu ne ko waaw kay mais sëñ Basiru xam nga der bee mu ne ko ah, bii de bii leer di man faal xaw ma mu ne ko sa derum ngénte ngi nii laal ko foofu te julli te ñaan loo bëgg ne ko bi ci des nag bii xam nga ko mu ne ko bii de xaw ma mu ne ko bii mu mooy mooy deru ngonte Moodu Falilu bii ci des bu Mourou Moussa ñetti der yooyu mi ngi ak sëñ Cheikh Ibra ba mu jóge fi mi ngi woon sëñ Mourou Moustapha xanaa léegi ku ca bëgg a xam dara nga laaj sëñ Cheikh njëkk sëñ Cheikh ndigal ba xam waaw waaye ñetti der yi moom nii la dem léegi nag bi nga xamante ni ñetti sëñ ñetti bési sëñ Fall yi noppi na ba mu bëgg a dem foofu it am na lu ma fu rëcc Cheikh Mat nee na. bu muy tàggatoo suñ fàllu daf ko wax ni ko boo demee toppal ci sama waaye day dajale ba mu dajaloo mu jox la yow nag ñu guddi fan ngay doon comme ko wax nag ko maam ja mu ko wax nee ñi mi ngi fii ci Mbàkke Jalo maam jooje nag laa fàtti turo mu ne ko kooku ngay niru ku ku gudd fan ngay doon nee sëñ Fàllu nee nii mbax ne ma ne ko tifli ko fii mu sëgg mu tifli loolu de sama nijaay wax na ma ne moom fekk na ko moom it njëriñ ci diggante Cheikh Ibra ak sëñ Fallou ak sëñ Modou Moussa ak sëñ Bassirou ci benn bis bii nag ñoo fa bokk daje waaye sëñ Bassirou daal julli timis yeewi ko dem sëñ Modou Moustapha yenduwu fa sëñ Fallou daal moo fa def ñetti fan waaw damay am mbégte ci ñoom ñu ma di ma laaj sëñ Fallou donte fekkee naa jamonoom nag bu baax a baax a baax xam ko bu baax moom it mu ràññee woon ma ni mu ràññee mboolem ñu nekkoon ko sëñ Aliou bii ndax noosoo gu daan noosoo di dem këram ak ñëw gu fi daan ak tuddi gu ñu ko tuddee eh, ma daan wooyee ñu bari alaaji lañ ma daan wooyee xam nga ñu ma bari ñu ma njëkk a xam allaaji lañ ma daan wooyee waaye turu fàllu wi ngeen ñu xam ni sëñ fàllu li ma tuddee ak tu fànn woowu neex na ma neex woo xam neexit woo xam ni dama xar sama tànk tubéy ba kenn dootuma wooyee alaaji ñëpp Fallu lañu wooyee ndax bëgg gu ma bañ am benn nattam la wala jaawale ni Sëriñ Fallu ma tuddee te yaakaar naa euh, jam loola yàgg na ba ma koy xeex boo seet loola yi nag léegi euh, ñëpp ngi euh, njëkkante di tuddee Sëriñ doom ndax tuddee dafa am njariñ lu bare bari kon maa ngi sant bu baax a baax di bëgg ci tudd gi ma tudd gi ma tudd Sëriñ Fallu eh, xam naa lu may nattali ci jamonoom eh, xëy na lu am solo lu bari lu gàtt rek doon eh, waaye sëñ Fàllu moom da doon xaritu Cheikh Ibra sëñ Fàllu moom moom dafa jikkoo jikkoy Baay Faal bëgg Cheikh Ibra ndax bëgg raw jumaa ji du toll de jumaa tubaa nga xam ne mooy mooy symbole bi gën a mag gën a mag gën a koo fonk ci yoonu murit ginnaaw njaboot doomu Sëriñ tubaa yi nga jël sa raw ba ci gën a ràññee ko nga tudd ko Cheikh ba loolu ak bëgg aku aku fonk aku cofeel bu ñu ko weesu kon mën naa ni Cheikh Ibra moom waaye njabootu Cheikh Ibra moom amee eh, amee na ko njukkal bu rëy rëy loo xam ni góobu ma yaakaar naa daañ lott ci ki delloo ko ko nam yelloo waaw ah, kon euh, loolu rek doy na ak seere te la tax euh, mu tudde ko ko mooy cofeel gi am ci moom te lii firnde li ma wax léegi ne sëriñ Cheikh Ibrahima moo jàngale taalibe ndax sëñ Fallou doni ndax man toog naa sëñ Abdou Fatah di ko nett li ne sëñ Fallou nee na ñaar rek la muy suuf ngir ak muñam ak Cheikh Ibrahima ak taalibeem kon moom Cheikh Ibrahima loolu lay ci ak taalibe te yaakaar na kenn gënu ko gënu ko am taalibe kenn gënu ko doon taalibe ci njabootu Sëriñ Tuubaa kon loolu doy na firnde ci ne kon ak taalibe moom ku ko am wala nga di ko nga di ko nga di ko nga di cee yëngatu ko roy ci ko wala nga gisee ko ci koo ak sëñ Aliou moom daanaa faral naa koy natti diggante bu xat la ni mu xat lool ndax moom sa borom da ko defaloon mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp am cofeel ci moom koo xam ni eh, seen cofeel seen diggante ak seen bopp la moom la bokkut ak euh, li ñu seq seq li ñu seq ak seen ngi ak taalibe yi moom dañu am nga xam ne bu ñu doon jàmbur it dafa mel ne dañoo xaritoo woon ak ñoom euh, ñu am cofeel ci moom lool daan fi ñëw di ko seet si li nga xam ne mooy mandargaal ñëw gi nga xam ne euh, cofeel boobu nga xam ne ak moo am diggante Serigne Fallou ak Serigne Aliou mooy man at bi ma ganee àdduna Mbàkke 1957 ci la Serigne Aliou tuxu si Tuubaa te li ko fi indi daal wax naa ko wax naa la ko ci magal gi jàll mooy sëñ Fallou daf ko nii Aliou ñëwal mm, Touba di Cheikh Ibra fekk ma fi mu nekk may may sëñ Touba waaw ba mu ko ko waxee la ñëw Touba mosu fa mosutu fee kenn du dul ñetti yoon bi ñuy inauguré marché Mbacké te sëñ Fallou ko woo moo moo ko yónnee woolu ko bi magam sëñ Ablaye Fall Ndar bàyyi ko mu dem Ndiarène di ko jaale ji ak boo xam ne sëñ Abdul Ahad moo yónni bàcc gay chauffeur mu ñëw jël si ko euh, mu yóbbu ko Touba mu waxtaan ak moom mu delloo si ko ñetti yoon yooyu la sëñ Aliou Massa génn Touba di ko dali 1957 ba 1978 bi mu génne àdduna te loolu lépp ci ndigal sëñ Fallou moo moo fi mu nekk fi nag jamono yooyee euh, maanaam njumtukaay bu mu rànkee maanaam ni léegi daanaka mu leen. Euh, liggéey amatut maanaam liggéey loxo amatut li ñu waroon def machine a koy def waaw léegi xëy na at yii ak yeneen ak yeneen lañ mën a liggéey waaye liggéey manuel moom amatut waaye jamono yooyee lu tuuranke la woon bu ñu waree sëkk fu taa wala ñu war a toxo toxalu nekk wala ñu war a tojub wala ñu war a def liggéey bu mu mën di doon liggéey manuel boo xam ne mbooloo mu pasteefu te takku ñoo ko war a def bu boobaa sëñ Aliou moo fi nekkoon jege fii ci doomi Cheikh Ibrahima ci bay Fall yi moom moom la moom lañ daan woo. ñu defee ko nañ ko bëggee waaw eh, ak eh, eh, yi moom moom nekkee Mbàkke da ko daan togg ñu di ko indi nekkee Tuubaa noonu buñ ma sax di yóbbu ndogu ngir jàngal mu taalibe suñu àll daan jël kenn ku ne jox la fukki dëm fukki mooy fukki dëmi kayit yu bëri yooyu vert yi moom la ñuy yóbbu boo demee ba ba ci sëñ Fallou mm, yóbbu ñu yóbboo ndogu yi ñu nuyu ko ziare ko ko waaw waaye diggante bu xat la boo xam ne daal mënees na ci wax lu bëree bëri am na ci loo xam ne sax bi sëñ Fallou ñëwee fii def na ko loo xam ni du wax sax yu ñuy wax ci waxi rajo waaye ñoom ñëpp xam nañ ko te fàttaliku nañ ko. fekk naa ba tey ñu ñëw fi si daan ñëw sëñ Fallou daaw fi jóg sëñ Fallou moo leen doon seen doy yëpp dañ fi dañ fi daan ñëw dañ daan sëñ Fallou dafi daan ñëw waaw ndax léegi la jamono ji xat léegi la jamono ji xat waaye bu njëkk booba Touba réewut noonu booba ñi fi nekk daanaka mbooloo mu néew la bon te ñëpp xamante waaw ah, te itam mm, maanaam si yàlla daal joxoon na cër doomi Sëriñ Tuubaa si jamono yooyu cër boo xam ne daal eh, ñu ko ko jox bariwut ndax suñu fan bu masaan ñëw am njàppam sax bu ko jàppee dañ koy naan dañ koy dañ koy taatan di ko naan waaw ah, ndax moom tuuram njàppam muy njàppam suñu fan bu ñëw dañ koy dañ koy taatan di ko naan dañ ko koy defee doomi Sëriñ Tuubaa yëpp waaw ah, kon loolu mm, maanaam mandragam tamit mm, Euh, joxe sa bopp la ak wóolu ak gëm waaw euh, beneen dinaa ci mën a natti loo xam ni sama diggante ci diggante ak Sëñ Fallou ndax nee naa la jamono yooyee dëkk bi melul ni mel booba kër Sëñ Fallou gi ak kër Baye Fall gi fi ñuy wax Baye Fall ci gannaaw ko soxna Daba Fall joxam ñooñu booba ngay dem ko soxna may moom yi booba amut mbedd boobu benn kër la boo xam ni mën ngaa jógee kër soxna moom yi kër sama safetu bu soob ba ci jumaa ji ci di jaar ci ay kër ndax nattuñu dëkki boobu benn la boobu suñu fàllu fi mu dëkk ak euh, maam fat si la way jur soxna moomi boobu soriwut euh, sama natt li dana ne wax ngoom gu mosaan jot mm, maam fat si la day day tàngal café da koy da da da koy da koy jël loo euh, capteur yóbbul ko suñu fàllu ba tax na jamono yoo xam ne man ma feebaroon feebar boo xam ne dañoo demoon ba defee ne maanaam nekkatuma fi nga xam ne booba bu fekkoonte ne dañuy wax li ñuy wax diagnostic clinique dañ naan faatu na waaye sëñ Fallou sëñ Aliou dafa woo Baye Mbaye Diop Baye Mbaye Sanaar dafa woo Baye Mbaye Sanaar boole ko ak euh, ak sama yaay ñu fab ma booba ne sama yaay nee na ma booba dañuy jël ñaari saako benn bi dañ xooj leen ci ndox lawal ma benn bi sànge ma benn bi ndax yaram mu tàng waaye nee na bi ñu ma xoojee yóbbu ma bu jub sëñ Fallou bi mu jugee bi ñu jugee sëñ Fallou comme waxoon na ko. sama di jooy. mu ne ko waaw soxna ngay jooy lu mu doon waaye lan la lan la waay mu ne ko man day mbàkkee dama amul ku dul doom bi ma mu dem. moom naa am ci doom ju doom ju góor dama bëgg mu nekk fi te jàq naa ci. sëñ Fallou ne ko waaye waaye waaye jooy waaye dama waay day yor rek waaye dara day dara du ko jot dama waay ñaanal ma. nee na bi ñu ko. dañoo ko ba jug pencum paaleen ci la xiqiwaat commencé noyyiwaat mais ñoom pour ñoom cliniquement deewoon na kon ginnaaw yàlla jàpp naa ne man kon moo fi nekkee ba léegi nii ngir yàlla ak suñu valoo tax kon doon na lenn ci eh, lu ma lu ma mën a nettali ci loo xam ni eh, booba lot naa ci xam ko man waaye ña ko ña acteurs ya ko ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo yóbbu woon nii sama lay may mbay jum sanaar mi ñoo ko nett li waaw kon ma jàpp ne lu wér la waaw baat ñu sëñ moom kenn mënu ko werante waaw waaw maa xew maanaam xew te xew yiwut sëñ Fallu moom du xew yi waaw sëñ moo jamono lu ne rek moo xew eh, yaakaar naa mm, Sénégal ak mm, bitim réew amul fenn nekk wala murit te du ko fa màggal ñu mën a ñëw dañ ko màggal si Touba ñu mën a ñëw it fañ toog dañ ko fa toog màggal ko moo xam ca daayira la wala sax ñu toog seen biir kër berndeel ko te euh, loolu lépp yaakaar bi ñu am ci moom rek ak it euh, xam gi ñu xam ni euh, bëgg ku baax ak fàttaliku bu baax njariñ la ca ne waxtu ñu ko defee rek saa su ñu gis dolliku ko moo tax ñu di ko def ndax ni ñi moom duñ def dara ngir yàlla lépp mooy gis ñu def di ko def ren ba déwén di ko baamtu rek dañ caa gis njariñ kon fonk màggalu sëñ Fallu gi dañ cee gis njariñ moo tax ñëpp di ko commencé di ko def. danga xam ne ni tam ah bis bii tam ñoo ngi di soññ ñëpp muy muy bi yëpp ndax màggal ko suba yëpp kat bis la boo xam ne bii ku ne xam na ni mu demee ndax loolu moom ñu bëri wax nañ ci waaw ah, day bisu sëñ Fallu Mbàkke ndax moom ci la gëné aduna ci daru salam kon lolu bis la bo xati bi tamit moom naka jekki ni la ko daan defee bu ma ne tay ji la wéru xëy da daan jëgé fi Touba dem do salam la daan fanani bu xëyee jaar kër sëñ aafe ñang ndéké fa dooga jëw kërëm non laa def naka jekk daaru salam mom bis ko sore bi mom ci guddi gi del del solaawu galaan fanaan yi naka jekk noonu la daan nag te xam naa ñii ko fi wutu gannaaw itam ba sëñ Modou Bousso Dieng ba sëñ El Hadj Baar ba sëñ boobu faaw dem del salaam am na ñu fay fanaan yi ñoo xam bu fanaan yi itam fa dem ba guddee fa loolu doog a ñëw loolu moom ah bis boobu noonu la demee waaw ba tax nag daal moom ah jamono bii sëñ bi sëñ tool itam li fi nekkee te yaar na it ci noonu lañ xamoon ci moom ci bis bii waxtu bu nekk bu ne jóge fii dem fa waaw nu sëñ Fallu nag nun xamuñ kenn ku moom ndax nun suñ baaju duñ jur sax xamuñ ko mu sëñ bir Mustafaa lañ xam ak sëñ Fallu ndax ñoonu yar ci diggante boobu laa yaroo waaw sëñ Mustafaa Faal damaa jur waaye nag moom ci diggante sëñ Asan ak sëñ Fallu fi laa yaroo ba ma ba ba ba ba ma ba ma sëñ ba ma sëñ asan jëlee maag sëñ asan faajaay yónn sëñ Fallu wala kaw sara jaar jóge fa daal di fii Touba fekk fii bu njulee timis ba noppi lan daal di jébbal sëñ bi keroog noonu ma koy waxee toujours rek ay lii lañ fanaani keroog donc bu ñuy wax Cheikh Ndiaye ci jëwriñ sëñ bu sëy la woon kooku sax moom yóbboon ci daara ji keroog seetal ni bii ne ci buntu ko sëñ bi mu mënu faati booba foofu la roote ndax booba ndox mi demeegut nii lool waaw foofu sax boobu itam sëñ bi noonu la seetal na yi meloon Tuubaa ndax jamono yooyu ndox mi moo yaatoogut lool waaye nag moom mu amoon seetal na boobu ci buntu këram amoon na beneen boo xam ne ci ci ci penku kër gi ab seetal naa ngi fi woon waaw foofu sax bàyyi mun njaay bàyyi ma fëri njaay boo foofu la dëkki woon ak ku jox baar géey moom li ba métti dëkk bi foofa dañ faa defoon sotone naan la ko suñ fàll defoon su bundi ko suñ la ko defoon projet boo boobu du loolu ndox mi demoon yëpp jumaa ji naan waay yëpp ndax mboor mi de bari foofu ak li liggéey jumaa ji loolu moo waraloon ndox mi noonu la ko sotone yooyu noonu la ko wëraloon waaw suñ fàll nag moom li nu xam ci moom ci liñ ci néew de mooy bi mu yaree nu nekk ak moom daal liggéey sëñ Tuuba daal yëngalu ko dara sëñ Tuuba daal moom yëngalu ko dara loolu daan wax ñun sëñ Tuuba rek la nag xamul leen bëggul dara du ma sëñ Tuuba rek ci loolu la nekkoon ak taal bi noonu la ko daan waxee suñ maam Cheikh Fall la ci ñee waaye suuf ak muñ suuf la ci ñee kon moom ci loolu la doon ci na mi yaatu ñun ñëpp itam nag liggéey nag rek bu ñu demee ba si yëf itam nii ñu ko xamee daal mooy liggéey moom la daan def jumaa ji daal li ci ëpp dañ koo béy waaw dañ koo béy moom ci yenn tool ëllëg ëllëg moom man bi may yóbbi daara ji wax dëgg man boobu suñ bàyyi ëllëg boobu nag amoon na yeneen daara yu nekk Naylul Maraam waaw na ma nekk moom Naylul Maraam man ëllëg laa nekkoon kooku loolu laa nekkee moom ba niñ ko jógee ñëw ndindi waaye nag lu mu fa mosaan béy ci li ma fàttaliku day liñ fi mosaan bay booba mu ngi ci digg liggéeyu jumaa ji daan def mosaan rooj ba setal day woon ñëpp ni dong yi ni ñu ci gees saa ngam naa leen fa fekk bu agsee sëñ bi su sëfoor moo koy jottali mu soññ nu ñëpp yéen dongo kër bi yii dongo sëñ Tuubaa gi liggéey bii ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa tax ñu di ko liggéey ak jumaa ji ñaan ni su fekkee li ngeen di liggéey benn dërëm danaa ko jëmale fenn fudul jumaa ji lu ngeen bay yàlla mel ne xorom da daan waat booba nawet musta manqué nawet yi manqué nii boobu musta am jamono bi ñu liggéey jumaa ji booba loola musta am noonu la ko daan defee itam tool bu ne daara ju ne kilomètre lay gunte yaatoo juróomi téeméeri mètre muy ab tool waaw noonu lañ ko doon liggéeyee téeméer gerte ak kilomètre dugub waaw noonu lañ ko daan liggéeyee bu noppee ñu def ko xam naa lu lu ci lu ciy jàdd fenn de mooy asaka ji asaka yi daal yi ni ndax kuy liggéeyal suñ Tuubaa nattale bopp bu ne daara ju ne dafa bopp ya fa toll ci nit ñi bu ne am na luñ koy jox loo xam li ci war feewoon ci moom la war a dunde noonu lañ ko daan noonu lañ ko daan natte noonu daan natte njël yi dem ci daara ji waaw nga xam ne boobu yàlla nag xëy na da ngay soob nga dem waaye moom ñëpp ñii ñu ko daan defee moom te daara it ñuy ñu nekk ci tërbiyo dañuy tërbiyo ñu war a ci jàng dañuy boole jàng ak liggéey noonu suñ doon def nun ñii suñ daara ja ay tuut tànk lañu woon yoo xam ni bàyyi daam njaay moonu yoroon booba <coughs> boobu boobu nawetee dañu wér àllu yi saa bu tawee rek ñu waaw di liggéey waaw ba keroog ñu am jot bu mën a ñëw jàng noonu noonu lañ ko daan defee boobu Baye Dame Ndiaye moom. sëñ Fallou nag wax ci moom te bokk Cheikh Ibra yomb na ndax Cheikh euh, sëñ Fallou fi mu teg Cheikh Ibra Fall na. kawe na lool seet na xolub képp koo xamante ni bokk nga ba ndax fonk na ko fonkeel koo xamante ni jumaa ju toll nii nga tabax ko muy juróomi sooroon nga jël ba ci sut tudde ko ko eh, te kon war a tuddee eh, eh, ay waxtoon bëriwut waxtu bi loolu am na am na am na feeñal ci diggam ak Cheikh Ibra man nag ah, sëñ Fallou moom maa defar loo xam ni ay saat la ndax euh, sama waajuru jigéen def naa am na ci sama kër waajuru góor juróom-ñaari doom yoo xam ne duñu duñu dem ah ma bi sëñ Fall bi sama bàyyi jaaxle ne ba jaaxle ne andi ko ci sëñ Fallu ni ko naa bëgg kii nga ñaanal ko sama soxna si nga ñaanal ko ndax day def ko am rek mu jiitu mbir nga ñaar ko bu amee bu dee góor yow laa koy tuddee bu dee jigéen yow laa koy tuddee suñ fàllu ree ni ko boo ko tuddee dina dund de waaw loolu yaakaar na fir mi mi ngi am waaw ndax man nag maa ngi des si ñoom juróom soxna sax ah ginnaaw ba nga di dem naa ba am ay fukki at ak nangam man maa waxal sama bopp ni dama bëgg dem ca sama turandoo sama yóbbu ma ci sañ asam sëñ Assane ñu màggal bu noppi sëñ Assane boole maag góor gi ñu wax Mour Sarr sëñ Mour Sarr moomee mooma yóbbu ci ba ci sëñ Fallou bisu àjjuma ma ko mu ko ko ak kaw de lew na ma waaw lew na ma mooy ginnaaw eh, moo gaara moo garanté woon ni dina dund kon ah, suñu ba ba jox ba yóbbu ma ko lew na ma Ah, mu ne ko kii lew ma waaw daal ma jël yóbbu ma dindi boole maa suñ Moodu Afis fa nekk euh, ñaari at jóge euh, di liggéey ci kër ga di root di bale ci commune ci ndindi ay jamono euh, ñu ber sëñ Basiru Fallum suñ Mortala Fall daara yóbbu ma daara ci ndindi ñu nekk fa ñu toxoon Tuubaa boko ñu nekk fa ñaari at ñett suñ Fallu nelaw suñ Fallu nelawee ma dem suñ Mbuubu Jeng mu yóbbu ma ah, Bufra ca Saam yebal ba ma koy jógee maa suñ asa sabab boobu suñ Asan doon sama jëriñ moom ñu ne ba ba eh, Saam suñ Asan moo doon sama jëriñ suñ Asan sama ba na bokk benn bàyyi waaw suñ Fallu daal moom wax dëgg yàlla li li li ni mu demee ci noonu moom nu ñuy sant bokki Cheikh Ibra de ak kawe na lool ndax fa mu teg Cheikh Ibra kawe na ni ko bëggee ni ko bëggee yéeme na sagal na ko teg na ko mu daal eh, suñ fal daal moom moom moom rek mooy suñu daa bi ñu nekk nit ñi daal nga xam ne suñ bas suñ basee sama jëwriñ suñ basum suñ mortaala booba gerte lan doon bay foofu ci ginaaw tali bi rek xam ne àndu sore ak sëñ Abdou Karim waaw foofu lañ daan béyee teen ba itam euh, xam naa du sore foofu loolu daan roote di ko indi ci kër gi ba ma demagul ci daal daan béy gerte ñu ko beesee yóbbu dong yi dong yi moom ku ñu ku ñu masaan jébbale dañ nattaase ka jox jox ko dong yi waaw bi ñu fa jógee tubaab boobu it ba waaw ak dugub moom itam ko saaliku noonu la ko doon doxale ah sëñ Assane sëñ Cheikh di la fa njëkk a indi sëñ Basiiru Faal sëñ Amdi Yaasin ak ku ñuy wax sëñ Abdu Faal déedéet sëñ Basiiru Faal mii sëñ Assane a ko jur ci ak kuy wax sëñ Abdou Fall moom yaay jee sekk waaw moom ndax far la moo bokk la faatu sax ci daara ji moom moom moo am di yaasin ñoo bokkoon ñëwandoo ndax sëñ bi doon def ñaari ni ñu ñu fa mooy daa boole sëñ Cheikh Khady sëñ sëñ sëñ Cheikhu naa sëñ am di yaasin sëñ astafurlah sëñ am nabay fa ba mu dellu bay demaat ñëw jëlaat sëñ am di yaasin ak Abdou Fall boobu nun noo woon waaw ba mu dil suwaatee daal may jëlaat man mii ak Assane Fa Ndiaye ñoo fa mujjee dem foofu ci daara ja ñun ñii moom suñ Assane moo nu fa indi am na ñeneen ñu fa ñëw nag ku ñuy wax suñ El Hadj Fall moom suñ moom Baye Mbacke Fall moom it mujj na ñëw waaye mën na ne jamono bi muy ñëw nekk waaye moom daal. moo ko jiitu woon suñu seex jëmb ak suñu seexu naa kon jaay ngoom waaw ñoo ñoo bokk benn baay ñun ñii ñun ñoo ñoo sama baay ñu yóbbuwoon waaye ñoom itam mel na nag bi sama baay làqoon lañ di woon yeewi <coughs> ndax ñun moo tax ñun ñi ban fay ñëw ñun fekk ñu leen fën waaw ndax ñun daal ñii daal ñoo la wax fa nekkoon man mi sax ah, sëñ Fallou yéex naa xam sax ni man sëñ Moussa Fall ma jur waaw ndaxte nekk nañu ël yi bu ñu ñëwee ndindi bu ñu demee Tuubaa boobu ba mu àndal seen ci biir ko nag jox ma fa aw fas ma yor ak mu jóon naa jógee ca daara ja bi jamono bi ñu nekk Tuubaa boobu boobu maa ngi ci biir ko suñ fellu boobu suñ fellu moom moo ko indi daal may jox aw fas ma yor ko foofu ci biir kër ga boobu nag ca la ca la ma ca la ma xoolee ba xam ne maa wax ko suñ islam bi sa niveau bu gëstu day def bu la wanee gannaaw di dox rek da ngay def sëñ Moustapha Fall ko jur sëñ Ousmane bu suñu kii ko jur mu ne ko nga ne mu ko damaa sëñ Assane ko déet sëñ Assane ko fee indi waaye moom sëñ ba teg ma ci kaw waaw di ko waaw waaw nii ba ko waaw moom tubaab kàlla dal loolu boobu it teel a ma daal gën a ñoddiwaat nag. waaw parce que yooyu nag ba mu ko mayee dama daal joxaat weneen di def nag saa bu woo ñëwee Tuubaa boobu bu ne bu tisbaaree ba nit ñëpp gën dem bu ñu yéen suñ mu dajal Mbàkke <coughs> dañ ma ne ma toogal fii boo déggee mu fëgg loolu leefaa gi fëgg bunt bi fëgg de ah, baraag bi day woote na nga ñëw ma daal bu saa bu fëgg rek ma daw ñëw bu ñëw salaamaaleykum bu nekk si mu ne mu ne anañu ma ne ko dañoo génnoon de mu ne ma waaw suñ biir suuf la di kalam naa bu lekkee bu suuf day dem jaaxaan rek <laughs> waaw waaw daa mel kon mbaa yow rek mu ne ma si ñëw ñëw na ma ma fi wax moom lu bare bare ak yàlla waaw loolu moom am naa sëñ fen moom ndax maa bëggoon nag lool nag moom carré moom noonu nii la nekk rek bàyyi faale ko gas moom ba indi ko fii naka jekk nag at mu ne comme niñ daan demee xel koom rek bu bu waxtu ba jotee ñëppay màngu dem fa lépp waaw ñii dañ fay juddoo sax ñii dañ fay fase soxna ñii dañ fay def lu ne ñu koy lu ne lu luñ lu baax lu ne rek lu ñu fekk feneen lu ne rek foofu lañ koy màggale lépp foofu lañ ko daan defee donc xel koom rek moo moom comme xel koom rek fekku doon xel koom bu fekku doon carrière bu ku ne boo demee xel koom rek meneen yaa ngi ca waaw ndax noonu la woon ndax ba fii ne nii ma lay waxee noonu rek ñu liggéeyi fii de bàyyi bàyyi noonu la ndax gis nga fi ne nii dëgg la jëw yi ñu daa tasaaroo bari lool waaye fu neen digal la nga fay jóg di fa jëm waaye terewut it léeg-léeg ñu boole benn baat ndigal lépp ndax suñ seetlu loolu moom doon na ko def hmm. xam nga fii ne gis nga bët ki démb rek ñu ngi woote ci liggéey UDPO ci liggéey UDPO bi xam nga boobu dem na ba ñu ngi fi loolu ci baat loolu dinañ ci soññee ñëpp di sant di bi yëpp nag ku yaakaar maam góor muy jigéen loolu ñu wax ni góor junni jigéen jigéen juróomi téeméer nañ ko man ko ñu ñëpp def ko ndax liggéey bi yoon moo demee ndax sëñ bi gisoon nañu amoon na jamono yoo xam ni sëñ Tuubaa laaj ñaar fukk ak juróom-ñett te yooyu jamono waaw boobu am na lu taxoon mu jóg waaw gis nga ko moo tax fi de boo ko seetee tam liggéeyu liggéeyu yoonu jumaa yoonu yoonu raay bii jógee Njaaréem ba Touba moom itam gis nga ko ni mu demee moom tamit foofu mu ne daanaka lépp bàyyi faa nee ko gas ñoo ko def ñoo def lépp waaye fi de boo ko seetee ñoo ñee fi njëkkoon sëñ Mourou Moussa Mbacke doon ko liggéey ba andi ko Touba xamal ne ñoo boo ko seetee lañ fay ak lañ def liggéey na jumaa ji fereen dong li andi raay bi Touba liggéey na jumaa waaw liggéey na jumaa moom ñooñee bokkoon na ci li ñu jëf léegi dëgg dëgg dëgg moom ndax boobu yoon yi demeewul nii kon loolu moom moo tax yoon wul na ku toog ku ne rek ak la nga dajeel na ngay jëfe rek naa loolu la demee waaye kat ku fi toog ku ne jëf nga fi jëf joo xamante ni bii ni boo ko seetee rek tabax na jumaa ndax yooyu jamono boobu demee waaye jafe na lépp jafe na lool ak dund jafe na lépp jafe lool te gis nga nañ ko liggéey baax si fii waaw waaw suñ kon daal moom noonu moom lañ xam mooy suñ lépp moom lañ dégg suñ lépp nag déedéet déedéet boo maati daara ji waaw nun day ah, nun donga tërbiye yi day mos nañ koo fekk si Touba boobu dañoo dem xëy ni nañ taxan ku ne da ku ne taxan sayu mat mat mañ taxam de man mii di sanse maa ko taxane ndoni te ginnaaw Touba Bogo diggam ak Touba Bogo mat na juróom-ñaari kilomètre mattum xar lañ ko def def ko matt mu jekk rataxal ko ba mu set wecc defar ko ba takk ko kenn ku ne loo mën a yanu nga indi ko Touba Bogo muy bisu buñ tam benn ba ca ngoon ñu daal di ci buntu kër ga daal di ne ñun doom ga dañoo fas yéene siyaar yi sëñ Fallu suba kenn ku ne sos matt mi liñ ko bëgg yëpp kenn ku ne soog sooy yaa xam na nga koy yóbboo foofa boo koy dug joti boo koy yano boo koy boot boo koy gaddu yaa xam rek ñaar yuuxu naa mat fukki kilomètre juróom-ñeent wala ñaar fukki kilomètre tubaab boobu ak fii keroog am na ñoo xam ne ñii ma ne keroog bi ñu jaaxoon bi ñu nodd nodd gu jëkk fekk na ci gis gi ci jumaa ci buntu ko suñ fàll ñu tëdd ñu wàcc suñu say foofu ba mu xëyee daal nuyu moom mu daal di ma tamit nangu ko ndax ci ginnaaw naa bay dama ko soxla dafa boobu matt mi booba dafa wet boobu moom moom lay waaje waaw ndaxte ndaxte ndaxte matt ma waaw bi sëñ Fall làqoo lépp sëñ Modou Dieng génnelu ci bis ba jaar gi ma jaar ci loomam xeeb ma ko ndax sëñ Fallu nga yendoog moom benn bisket mën naa ko jaajoo waxutuma nga am ci loxoom juróomi am naa ci loxoom juróomi waaw kon nag loolu war sama xel dal na ci man ndax mën nga yendu moom mu faj sa aajo am ci loxoom juróomi at nag mu di la gis di la waaw kon jaar googu ma ci jaar réy na ci man xeebu te jàpp naa ne lu ma am ginnaaw yàlla moo ma ko may waajtaayu bis bi moom mooy fonk ko rek fonk ko loolu lu am def ci lu man def ci ndax sëñ Fallou jar na ko ci nun jar jar na ko ci nun bu wéré wéré wéré te tey xew yéeg lépp ci moom lay bàyyi ko rek ndax sëñ Fallou borom paju ko aajo la moom lu waay yéene ci moom dang ko man lu nu am dal daan ko ci def lu man daan ko ci def ngir jëmbi sëriñ fallu waaw daan jàng alxuraan daanu bernde ci def sëriñ fallooy tax nu di ko def waaw waaw sëñ Abdoulaye Dramé la tudd waaw waaye dana ci agsi ah, moom ne ma la ni tawfiq bi mu am moo di ba muy gone maam Cheikh Ibra Fall moo ko laaj jël ko yar ko nga xamee ni yar na ko it euh, boole ko it ci ay laqarbam euh, ndaw yi nga xam ne moom maam Cheikh Ibra daana leen yónni gànnaar ci bisu bi nekke gànnaar xam ne dañuy doxee fii ba gànnaar yenu ay gaal lu nekk di ko yóbbu sëñ Abdoulaye Dramé boole bokkoon na ci ah ba maam Cheikh sësale ko rëkk ci boppam nga xam ne tey ñu wala képp ah, bari na bokk ñu xam am Cheikh ñoo xam ni xam nañu sëñ Abdoulaye Dramé bi nga xamee ni maam Cheikh dem naa it sëñ Mourou mu Fall teg ko foofu loolu mooy digganteem ak euh, suñu Moussa man nag lii ngay wax ci euh, la ma indi fi te ma bokk foofa loolu lu gàtt rek laa ci wax moo di man bi ma jàngee ci école régionale bu Njaareem ci laa jànge ba am certificat d'étude sama ndey ak sama baay ni damay bàyyi mu naqari waa école ba lool boobu mooy directeur école ba gis gi ñu gis sama taw ci njàng mi xam ni boo jëlu première deuxième laay jël loolu tax ñu ne kii xale bi daal yàqu njàngam dara jaru ko ndax ki buñ ko bàyyi woon dina jëm fa sori nangam nangam waaye soo ndey ak sama baay déedéet génne ma sëñ Modou fab ma def ma secrétaire am booba ma ko tooyee fi nag. saa buy waxanteeg tubaab yi moo xam da leen a fekk wala ñu fekk si ko maa nekk fi wetam li tubaab yi wax ma di ko ko firi ci wolof li muy wax ma di ko firi tubaab yi ci tubaab di ko bindal ay bataaxalam di ko jàngal ay bataaxalam buy tukki it ànd man xam ne bu toogee ci kanam oto bi ci gannaaw day ba. xam ne buy dem dama koy yëg yooyu ñu sama ndey defaral ma euh, sama yére moo def ci sama saak dugal ci oto bi am bis sama baay ñu jóge si Modou Moussa daal di ñëw ñu defaral ma samay bagage booba maa ngi defe nan daan def rek ne dama ñaan dama tukki ji bi ma dikkee sëñ Modou Moussa maa ngi toog nii sama bàyyi toog nii sëñ Tayba Alaaji sëñ Tayba Touré soweer sëñ Fallou toog ndekete sëñ Fallou moo ma laaj yebal si otoom sëñ Tayba ni naa ñëw jël ma bi ma dikkee sëñ Moussa Re daal ma daam sëñ Fallou da yàlla laaj jógal ànd ak sëñ Tayba mi dem wu ji ko da lay mu mel ni nag dañoo tuggal àdduna ci man ndax man boobu waxuma kenn ku dul sëñ Modou Moussa booba àddina man pour man àddinaa ngi tàmbali sëñ Modou Moussa fa la li sëñ Fall yu baax baax xamu ci soxla ma dal di jooy ko duma dem jooy jooy mu bàyyi ma ma na jooy jooy ba noppi mu ne ma ci la ma wax wax joo xam ne jii ci laa gën a xamee sëñ Modou Moussa pëstéefam ak jeexam si sëriñ bi ak it wilaayam ut yu mag a mag a mag la ndax la ma waxoon ba fi mu mu ngi saa nopp yi ba ma jooyee ba noppi dafa ma dam dangay gën a rekk de moo war sa jiw yi waaye <coughs> loolu sëñ Fallou yi def loo ji fee ca Touba bu ma ko mënoon man mi du ma lay maay dem defi ko te nga fekk dangay set bo positif mo mi khalifa Baye fali mo ni ma la la sëñ Fall def lo jitt je Touba bu ma ko man mi duma ma lebal may dem defaliko bu ma amon dom ju ko ma duma du ma lebal sans dom lay yebal waaye bu ndee mooy seigne dang ko xam dam jugul dal jug seigne tay bi dal jug booba suñu fa lu nga oto bu rafet boo xam ne daal moo dàqoon ci réew mi bu la ba taxaw mu ne sëñ Taïba mun ko nga lenn rek day moom ci xaw a jaaxal waaye nag jaaxle gi dana dañ ko ragalu xiif la de waaye nag boo demee yóbbu ko ca maam sawi sama doom jafa ne nekkoon na ma ko toppatoo bu mu xiif keroog la jëkk a dugg tur maam sawi muy ndey sañabo mi ma jóg sëñ Taïba ne ci kanam daa ma ne ci ginnaaw boo jënd yi bëgg a sow dina ak si Tuuba ci laa jëkk gis sëñ Fallou Mbodj njaareem ci laa jëkk gis sëñ Fallou Mbodj mi ngi yor nii quartier boo xam ni café nga ànd ak meew la siy xel mu xel jox ma xel waaye dara sax fu mu ci woon mu daal ni sëñ euh, tay ba àndal moo yóbbu ki soxna am si wax ko li bàyyam wax sëñ fa euh, tay ba ànd moom dikk ci soxna am si bisub keroog la soxna mu am say tàmbali am na booba sëñ abo booba ci juróom-ñetteet juróom-ñeent ci lay toll am koo xam ne kii taalibe sëñ Fallou la am doom tuddi ko sëñ Fallou muy Fallou Seck moo xam ni ci juróom-ñaaret la toll abooku mag benn wala ñaaret mu jox ko sëñ Fallou sëñ Fallou jox ko aboo Fallou Seck moomale bisu keroog la soxna maam say Fallou wut ab këll boo xam ne sama këll la ko defoon añ reer ndekki dara mosuma ko ci moom moo tax maam koy gëm te di ko sant bu baax a baax a baax ndax bu fekkoon du moom sama nekk Tuubaa dina defaloon sëñ Moussa mi la wax def ko fonkoon lool ngir xam na ni tay bi boo nekkoon ci maam Cheikh la moo nekk ci moom pëste boobu moo amoon moo ne ci moom moom itam mu def ko muy léppam keroog ba nga xamee ni sëñ Modou Moussa Mbacké fanaan na àjjana sëñ Moustapha Fall mboolem seex yépp jébul sëñ Fallu waaye sëñ Moustapha Fall jëkk jébul te booba sëñ Fallu ñu bari xamuñu ko woon ndax bi fi sëñ Modou Moussa Mbacké nekkee ci ni yoonu murid baaxoo kenn nguut a surtout moom nu nguut a daanu ko woon ba ñu bari ginnaaw sëñ Modou Moussa Mbacké la ñu ko soog a xam bi ko xamee it kumpa gi ñu amoon ci am ñu kii de sëriñ bi naan leen xamul dara ba dara wala jë waaw jàpp ni mënut a doxal yoon ndax jàpp nañ ni euh, ñaw gaag xel maag idée euh, ak yoru ko sëriñ bi naan leen dong la sëñ Modou Sa akasa man ab sëriñ laa doon wutuma woon buur wutuma woon buumi lii ngeen wax na moom a sawal ab sëriñ laa doon wutuma woon buur wutuma woon buumi waaw mu eh, loolu yi mooy li nga xam ni moo doxoon seen diggante ak moom leneen li ci des nag du loo xam li man sa ko nettali waaye seen diggante foo ko takk wees na ko foo ko takk man moom mu boole ci it moom si Moussa Fall liggéey bu ñu mës di liggéey bu rëy rëy rëy rëy rëy moo koy moo ko sëñ bi Fall jiite la moo koy jiite moo fab moo sëñ Cheikh jëmb bi muy tey boobu gën na fi gone jox ko sëñ Fallou fab Cheikh Khady sëñ Cheikh Khady Gueye jox ko sëñ Fallou fab Cheikhouna Fall sëñ Cheikhouna jox ko sëñ Fallou fab jarbaatu mu yox Cheikh Mbodj jox ko sëñ Fallou ñëpp ñu daawul nga ji ci dëkk bi. waaye bu ñëwee gis na sëriñ bi jox ko dama koy jox jot ndigalam yot daal delluwaat kii mooy sëñ Modou Moussa Fall digganteem ak sëñ Fall ah, li ma def lépp ma ne su ko wax ndax da ci am loo xam su ko wax ci mbooloo waaye daal ah liggéey na liggéey boo xam ne bii day kenn mënu ko xayma. te nekk ñu nekk ci nag guddi ak bëccëg guddi ak bëccëg guddi ak bëccëg màggal bu ñëwee mbooleem liñ fi def ci màggal xeet yi nga xam ne mooy liy battali màggal yëpp ganaar bëy xar nag gëléem lépp lay joxe lépp lay joxe lépp li ma la wax moom amuloon ab gol du denc parce que ñeen ñu bari dañu naan waxtu sàngam laa joxaat yëpp bu déwénee ma joxaat ko déet suñ fal denc lu dikk dem tuwaa ah waaw waaw ndogoy kay amul lu yoo gis nga fàttali nga ma ndax gis nga ndogoy ci boppam ma doon lim ñu sos ci moom ah, limaale wu ma ci Cheikh Tall ak Cheikh mu ndaw Cheikh Tall Gallo dañu mujjoon tudde ko Cheikh Fall Kastiloor ndax bu dee eh, li nga wax ndogu ndogu yi moom naka jëkk moom du waxtu wu kenn du xam no nu muy demee ci ci ci bariwaal góor ñee koy togg dégg nga ah ci ñi ko daan séddale la bokk boo ko defaay Cheikh Fatal Gallo moom mi ma la wax euh, da dañ daaram li wax super bi moo di ay ganaar doom lay doon li ci des ceeb ak yàpp lay doon waaye super bi moo ganaar rek leen kooku moom kër gu mag gi la daan jëm Cheikh Fatal Gallo moom mi moo ko daan togg moo tax ñu wax Cheikh Fatal Kastiloor dàqa togg jigéen ñi ak Cheikh Fatal moo na rakkam Mabarak Fall mi ma la wax di bàyyi Cheikh Fall Mabarak mooy ki nga xam ne moo daan fees xar yeeg nag yi kooku yi loolay liggéeyam waaye lépp li nga xam ne moo jëm ci euh, xam nga ndogu dafa gën a siiw waaye euh, sëñ Moustapha Fall moom ni Cheikh bi la daan dox rek da dox ndax tabaski ci boppam Euh, xar yi mu ci daan joxe te loola lu ñëpp xam la moo di da daan tànn ay xar yoo xam ni benn bu ci ne kéemaan lay doon ay tànneef lay doon indi ko fii xam ni ab lim lim bi mënees ko lim ndax day yokk ndax moom daaw lim fi benn barab bu ñu defee bu defee ren lii bu déwénee mu defaat bu déwénee faw day bëgg di di yokk waaye yem defoon naa daaw nangam déedéet xar yooyu sëriñ bi daan def kilifa yi muy jox xar ci réew mi ndax sëñ bi euh, kilifa yu bari bari moo leen jox xar xari sëñ Moustapha Fall yooyu la taa xar ba mu ñëw ñu fab ci keneen na ko euh, xawoon na dam muy sëñ Modou Massamba Diop mi waaye sëñ Moustapha Fall moom ay xaram moom la sëñ bi daan ne ba mu ñëw mu jox ci waa kër gu mag jox ci waa ñu eh, kilifa ñu bokkal sëñ mag bi eh, jox ci ñeneen kilifa yi yi waaye waaye xaram waaye ni ma la wax bur loolu it dama la ni du denc dara dara dara dara lu dikk rek dem Touba waaw loolu la xam-xamu lu dikk dem Touba lu yendu si fanaan yi lu fanaan si yendu waaw amul lii amul lii li lim bi ma la xam ne moom la si daan joxe ci at yi mooy li nga xam ne ah, at at baat lañ koy joxe weer sangam weer sangam moom laa la wax ne moo ci daan moom ci kilifa yëpp nag moom laa xam ne moo ci jëkk a joxe million ci ay jamono nga xam ne million boobu des ko daan dégg waaye des ko gis léppam nag Tuubaa suñu weer am soxla ci loolu kii mooy sëñ Modou Moustapha Fall relation am ak colon bi ak relation moom ñëpp moom leen rek la woon amul soxla ci kenn ku du sëñ Fallu boo ko xam ne ma am kilifa la am loolu soxla demal si kilifa amul soxla ci jéemul a wut dara jéemul a xool dara dara dara ba loolu xam nañ ko genn kilifa la am mooy sëñ Fallu kuy wax demal ci moom wutul wutul leen jéem a taxam kenn te dolli ju rëy la yor waaye amu ci woon soxla Long John